ndaxam ji waay ji koy yonen la lamboo ma ne fu la lim gëne ndaxam ji waay ji koy yonen la lamboo ndaxam ji waay ndaxam ji waay ndaxam ji waay jikkoy yonen la lamboo mu fu lëlim gëne lam yekk boromam fu ne raaseeti waaju mel ni mi mbër wayaf na ca kaw ta diis na ca biir boromam fu ne raaseeti cant bu dem ba njaloor tey leeral yépp gox ji kenul boromam fu ne raaseeti ko bu jugaa du geesoo rombu dërëm ya jëm ci mbirum boromam fu ne raaseeti waa joo ni buy wax ku nekk di lox di làqu ku dul boromam fu ne raaseeti kuy fab alxuraan ji di def ci taax di taalif ngir boromam fu ne raaseeti waajoo xam ni buy way arab fu mu def aras di ca bég boromam fu ne raaseeti kuy gis alu badirin di ànd ak ñoom ti deyaaleg boromam fu ne raaseeti waajoo xam ni fu mu teew ku wopp mu faj ku dee muy yëgal boromam ku bañ bi xut bay raasi moroomam du gis bu ne mel ci ji jamonoy boroomam gisefu ko woon ca gaaye weyoon ca baawoon xam ni ni jubit du ci ñëw moroomam ku weddi ba bëgg ni maay moroomam na def li mu def tew wax li mu wax boroomam te dox li mu dox ci réewi Gabon wa Congo ci ay noonam te fekku fi moroomam te sakku ko mel ni Seyki Ibra Faati wa Ahmadu Ndumbe ak lampu boroomam tasaku eh, min nisiqi ibrafaati wa ahmadu ndumbe ak lampub boromam tasaku eh, min nisiqi abdurahman loo ku juddi ci mbàkke moo xamal boromam tasaku ku làq jagleek siidil muxtaar dem ba siyaare yonnen moo ki doomam te seexal kem li seyxi bamba seexal te sellal seeni xol ba ñu xam boroomam te sakkal leeni mbooloo faw yuy jëf te tàggat leen ba duñ mën a mooy boroomam te kat saxa liggéeyal ngeen ji yonente bum tere muy taxaw faratay boroomam te dootu nelaw te day daw soxna yam waam di daw seytaane tey weet ak boroomam te bu mu yokkat bum jënnal la muy jëf te bum njistal ci jëf na ragal boroomam te bum dingat sëriñ si bum fayantoo te bum bengir koy gotil moroomam te bumu xas nit bum jëw bum rambaajit te bum fen bum dokku mbokku moroomam te day xam mbooti xol di xam baatinam nit di saa faray rag di xalam boroomam te bu mbigle ka ay ci wàllu bakkan di woo te ca kaw te biir ba gisul boroomam doy na yow Musa lim doy na yow Musa taxawlul ba daa jota gaa lu mat asakay boroomam Musa ba li nga ilim doy yow Musa taxawlul ba tey jotoo góolu mat kay boroomam dégg ñuy jàng way wi ma ñaanal ma am ngërëmam te sax fi ba xam boromam def gëlam bu koy way feek wax ju ma wax mu saf ko te safu boromam ku bëgg di mbër meloy Bàmba seetal ku mel nii mooy doonay xutbu boroomam ku bëgg di mbër melay bàmbaa ngi seetal ku mel nii mooy doonay xutbu boroomam ku mel nii mooy doonay xutbu boroomam ku mel nii mooy doonay xutbu boroomam waaye ku mel nii mooy doone xutbu boromam ku mel nii mooy doone xutbu ku mel nii mooy